ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. Ah, ngay di taxawee li nga xamante ne ni moo di daayira sëñ Aydara ah, di gën a pasteewu pasteefu sax ci daara ji Bawsaan ba mu wax ko tey yow naka nga mën a dundee loolu. waaw damay musulagum ci seytaan ba pare wax aouzu billahi mina seytaane rajim bismillahi rahmaani rahim ah, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw di wax rek Serif moom li may wax ci moom rek lu gàtt la. muy ku am taalibe la shérif ku dëggu la shérif sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam man moom yonent bi laa koy xoolee comme gisuñu ko waa ñu jàpp ci moom rek dëgg la man taalibe sëñ Touba mais dama li tax ma topp euh, shérif dëggu gi ma gis ci moom ak dalay teg ci yoonu siraatal mustaqim jàpp leen julli leen teg leen ci yoon bu baax man soxna Xadi loolu tax ma topp Chérif di ko ñaanal rek bés bii muy def nii yàlla na ko yàgg di ko def ci barke maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu toog ba ay sët sëtaatam di ko def wax dëgg yàlla fii dara manqué wu lépp lépp dafa ne gaañ dara manqué wu fi ñu koy ñaanal rek Chérif Aïdara yàlla na taxawaayam yàgg li mu bëgg ci diine bi yàlla na ko yàlla defal mu toog fi bañ koy weer ak a weere ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kontaan nañ maa la gën a kontaan y nga doon sama xarit su la ma wax la doo ñëw. mais da bàyyi sa lépp nga ñëw yéen yàlla na toog bañ leen dégg fu àdduna yëpp fi ñu dégg journaliste ñu dégg leen fa ci barke bés bi barke maamam tam Seydina Muhammad sallallahu alayhi kontaan na trop kontaan naa jërëjëf. yaay ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu baax di leen fay leen sant di leen di kontaan trop seen ñëw ci jàngu shérif yi shérif Ahmed euh, Mouhamed Fadel Aïdara ñu kontaan trop. kontaan nañu torop bëgg nañu ndax amuñu lu dul bis bi yéen yéen a yar sërif waaw tey mu dem bay taxawee gudd gi di sëriñ ay am ay taalibeem ñi ñëw euh, ba bés bi sax daanaka mën nañ na taalibe yooyu def yëpp tey yéen ban yëg-yëg ngeen am si loolu xanaa kontaan rek di sant taalibe yi di leen gërëm rek li ñu mën ren bu déwénee la yal nañu mën lu ko raw ndax sërif lu ko waay defal rek rek doo ko rëcc ndax baax na am na yëg-yëg ci doomu aadama te day yërëm day yiir dëgg yàlla ku feebar mu faj la boole kook ay waxtaan ak boo stressé boo ñëwee léppay denc ci yow daf lay accueillir vraiment ba doo sonn ci dara social la tamit da ngay ñëw ak sa problème mu dindi fajal la te kenn du yëg macha allah yal na ko yàlla la fal cat. ziar naa la. yal na yàlla te boole ñu ko. Euh, waaw nga ñu bàyyi la rek nga présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel ci gàmm gi di leen wax ne man maa ngi tudd Antou Fall di taalibe ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu di taalibe ci kër Cheikh na Cheikh Abdou Aziz di taalibe ci kër Cheikh Mouhamad Vadel ay dara di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér di ñaan gàmm gi lépp lu mu mën ren bu déwénee yàlla nag mën la ko ëpp ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa naka ngeen di dundeek ak sëñ bi muy sëriñ ak ay taalibeem. waaw macha allah ni ñu dundee moom ni kilifa di dunde ak taalibeem ndax sëriñ bi waxuñu lu dul la wax waxuñu lu dul li yonent bi wax teg nañ ci charia teg ñu ci diine teg ñu ci dëgg ndax moom dafa nekk nit koo xamante ne nii macha allah yàlla da ko jagleel ay may. waaye loolu gis ko li mu gis mooy li yàlla digle ak naa Muhammad mooy tegu ci yoon siraatal mustaqim loolu la ñuy dundee ak moom. ñu lay jaajëfal sang bi. yàlla nangu. te lépp li nga xamante ne nii ñu ngi koy ut ci bis bi yal na ko yàlla def muy ay ngëneel sotti ko ci jullit yëpp ndax bis bi dama gëm ni ku fi ñëw sa ajo day faju mm-hmm. xam nga lu tax. liñ ko ubbee la mooy alxuraanul karim ñu julli tàkkusaan def suñu xadra zikrullahi muy li ñu yàlla digal ne fu ñu toll nañ koy tudd suñu wasilatul kubra muy cheikh na cheikh Saad na ñu bàyyiwuma leen ak lenn ndax biñ ne nit ñi dañuy jihaat mu ne leen jihaat benn la muy jihaaduna na wax jihaadul akbaru silaahuna xaylalat na tukararu muy jihaat bi gën mag mooy jël jaasi teg na le te jihaat ak sa bakkan ñu ne jihaat ak sa bakkan mooy lan muy sàmmook sa làmmiñ ak sa jëmm ci saxoo laa ilaha illallah te moom la def ci tàkku tàkkusaan ci guddi gi incha allah ñu fanaane tagg Seyduna Muhammad ki gën ci mbindeef kon ma gëm ni fii ku fi ñëw tey sa aajo day faju ndax baatunu shérif ak melokaanu shérif ak muhabba bi shérif am ci Seyduna Muhammad di maamam am ko ci jullit yàlla yi am ko ci taalibe yi te li liñ ko yéene ñun moom yéene nañ lu ko ëpp kon macha allah fii ku fi ñëw sa aajo day faju dina xumb dana neex te dana dagan incha allah yàlla yàlla def jàmm non kon non kon fii fii tey du yomb incha allah. <laughs>